بسم الإله إفن الأدار يا الله سفي بقاء به لي فيك يا الله بسم الإله إفن الأدار يا الله سفي البقاء به لي فيك يا الله بسم الإله إفن ak daara yàllaam safi baqa abihim li fika yaa man yaa man laa sharika lahu auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi arrahmaani arrahim alhamdulillahi rabbil aalamiin laa xawla wala quwwata illa billahi alil azim mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu noo ngi sant borom bi subhaanahu wa taala moom mi nga xam ne mooy aji bind ji di ki nga xam ne mooy jëf lu ko soob te ko soobe di borom kàttan gi nga xam ne kenn nutu ko waaye di boroom njëggal gi nga xam ne du toppe di boroom yërmande ju yaatu ji noo ngi ñaan mu saxal ñu ci ñu doon ay jaamam yu koy jaamu tey bànneexoo ay dogalam di julli ci Moustapha sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne lu yàlla bind jëmmam moo tax te teral ruuxam nga ak jëmmam ja di feddliwaat sunu yaakaar ci liggéeya konam bi di Seexuna Ahmadul Xadim mi yàlla wàcce ngir muy sowetaasub jullit yépp di ñaanal ki ko fi nekkal di jëwriñam di sëriñ Tuubaa Cheikh Mahamadul Muntaxa yàlla na ko fi yàlla gën a yàggal te gën a dolli ak wéram bokk yi ñu amaan mbégte mu yaatu tey santaat yàlla mi nga xam ne mooy maye te di ko ñaan mu gën di ñu may ñu mën a toogaat ci waxtu wi ngir defaat kàddu yi fàttaliku walla seere walla témoignage ci jëmm joo xamante ne bii lëggéeyal na am réewam lëggéeyal diineem lëggéeyal ab tarixam lëggéeyal ay bokkam doonan murid saadix di doomi soxna doonoon it boroom baatin di ku yàlla joxoon kàttanuk zahir di alxaaji Babacar Kebe Njugo nu jagleel ab siyaar jëwriñam ji ko fi nekkal nga xam ne moo mag ci ak njabootam di Cheikh Mahamadul Bachir ak mbooleem ñi topp ci ginnaawam yépp waaye di siyaare nag sunu bunt ci ñoom sunu jigéen di soxna Mominatu Kebe moom alxaaji Njuga Kebe ak soxna Mariam Jeng Saala di siyaare magam di xaritam di Cheikh Mahamadul Moustapha borom njaareem di siyaare ñi mu bokkal alxaaji Njuga Kebe yépp di siyaare itam soxna Mominatu Buso Abbas di siyaare mbooleem njabootuk alxaaji Njuga gi mbokk yi 13 mars la fi alxaaji Babacar Kebe Njuga bàyyi ko woon wu ji borom bi subhaanahu wa ginnaaw bu mu dundee juróom-ñaar fukki at yu tegal ñaar wala ñett wala juróom-ñaar fukk ak benn ak lu ca mën a xew 13 mars mbokk yi mu ngi ñëwaat bi alxaaji Babacar Kebe Njuga demee àjjana ak léegi di fanweeri at ak juróom-ñett mu doon koo xam ne ginnaaw bu yàlla dogalee muy doomi soxna ju jàng li mu war a jàng lépp doonoon it mbokkum réew mi ci wàllu kër ndey ak wàllu kër baay waaye di koo xam ne itam ko amoon ijaaba ci wàllu as lasraar doonoon ku dëggu ci ay wax di boroom aw fit doonoon ab tab boo xam ne loxo ba da daan sotteeku ne wax set kooku nag fàttaliku ko dafay dugg ci inda sikri saalihin tansilu rahma li boroom xam-xam yi di wax ne fàttaliku nitug yàlla day wàcce yërmande yàlla waaye dana dugg ci it li suñ borom ne del fàttalee bu fekkee na fàttali dana amal njariñ way gëm ñi ma jot ne fàttaliku alaaji Babacar Kebe njuga ci ay ñaan jaadu na ci réew mépp buñ ne 13 mars mi ngi waaj a ñëw ñuy ñuy waajal ay ñaan ak préparation yoo xam ne Afrique danañ laaj ne waaye Sénégal lu ñuy waajal lii monde bi danañ ko laaj ñu ne leen serviteuru africain yi doonoon Alxaaji Babacar Kébé Ndiouga moo fi bàyyi ko woon ci weer wi Cheikh Abdoul Ahad jàmbaar ji dafa waxoon ne ku liggéeyal yàlla jaami yàlla yi ñoo la war a fay ku liggéeyal jaami yàlla yi yàlla moo lay fay kon ku liggéeyal lislaam jullit yàlla war a fay ku liggéeyal tarixa bi murit yàlla war a fay ku liggéeyal sam réew citoyen yi ñoo la war a fay alxaaji Babacar Kebe Njuga nag liggéeyal na am réewam mu di Sénégal loolu danga ci def taxaw seetlu mooy mbooleem eh, bunt yi nga xam ne mooy jur développement ci am réew bunt boo ci fëgg danga fekk ne alaaji Babacar Kébé Ndiouga def na ca loo xamante ne bii jëfi état lay doon waaye du doon jëfi doomu aadama kese rek waxuma sax état boo xam ne am réewam ñoru ko waaye état boo xam ne dañoo fab seen dund gépp koo centré wu ko ci luy defar seenum réew ci mbooleem facteur de développement yi soo demee da nga fekk ne alaaji Babacar kebe njuga moom képp def na fa loo xame ne jëfi état buy liggéeyam am réewam la te daray àdduna mësu ca ànd dara yi politique mosu ca ànd daray njiital mosu ca ànd defaral sam réew mooy bu dee jëm ci wàllu commerce ay centre commerciale yi gën a mag ci réew mi Alaaji Babacar Kebe Njuga moo ko defar bu dee dem ci wàllu transport yaakaar naa ne boo demoon ci jamono jooja Prisac wala bunt yi nga xam ne fa la ni jëndee ay oto da nga fekk ne mooy nit ki ëpp lu mu jënd ay carte grise ñu def ko ci ay tur ngir jëmmi borom bi subhaanahu wa taala soo jëmee ci wàllu waneen wu mën a doon da ngay fekk ne alaaji Babacar Kébé Ndiouga joe na ci rôle yoo xam ne euh, yaakaar naa ne moroomam amagut ci miim réew bu demee ci wàllu tourisme da ngay fekk na otel yi ak yenn nu ko nuru yëpp lu ci nekk alaaji Babacar Kebe Ndiouga def na ca loo xam ne ba tey jeexital ji mi ngi des ci réewum senegal mii soo duggee nag ci biir diine lislaam ji dangay fekk ne ab jullit ñi ngi ko xamee ci yat muy di jaamub yàlla bu koy jaamu ci ay cëram waaye di ko wax ci aw làmmiñam matale ponk yi ci taxawal julli juróom woor weeru koor di natt asaka dem màkka su fekkee ne sa kàttan may na la ko boo duggee ci taxawal julli yi demal dëkk ba nga xam ne moo doon cosaanam di Kawlax danga nga fekk ne alaaji Babacar Kebe ñu def na fa jumaa joo xamante ne bii sëriñ Tuubaa Cheikh Abdoul moo ko inauguré ji woon ànd ak Sénégal gépp muy jumaa ju ràññiku loolu liggéeyal lislaam la eh, ndax ab ab jullit bu tabaxalee yàlla ab néeg sun borom na ko tabaxal néeg bu gën bam ko tabaxal ca aljana kon alhaji Babacar Kebe Njuga paleem ca àjjana tabax na ko ci àddunaam soog a génn àdduna boo ñëwee fii ci jumaay tubaa ji sëñ tubaa ñaanoon na wax ne yow yàlla borom bi subhaanahu wa maa ngi lay ñaan nga defal ma bu ma génnee àdduna fañ may denc di ma fa tëral nga defal ma ko muy foo xam ne danañ ko décorer ci ay décoration yu rafet defal ma fa ay lumière yu mucc ayib yoo xam ne dana màndargaal sama texe ëllëg fa ma nekk ca aljanna loolu yaakaar naa boo del sewaatee da nga fekk alaaji Babacar Kebe Njuga ñaan googu alaaj nangoo na ci loxoy alaaji Babacar Kebe Njuga ci li mu def ci jumaa yi Touba ak bëggam Touba da gis ne da gis Kebe 1 Kébé de Kébé 3 Kébé 4 Kébé 5 Kébé 6 ba Kébé 7 muy ay kër yoo xamante ne bii booba Touba melagut nii ab àll la woon muy dem di dànd dëkk bi dafa def ay këri milliards ngir rek xemmem teefu li sëñ Touba di ñaan muy dëkk bi nuroog turam turandoom wa nekk ca aljana lu rafet Alaaji Babacar kebe Ndiouga yéene na ko Touba ba naal fi paleem bu bii nga xamante bii. palais sëñ tubaa la ko ko tudde woon bëggoon bu palais bi àggee yéeneem ci jumaay Touba àgg mu invité islaam bépp ñu bokk fi daje ñu xam ne kii mooy sëñ Touba waaye fii mooy dëkkub sëriñ Touba di dëkkub lislaam waaye boo dellusiwaatee ci wàllu social dangay gis ne la maam Cheikh Anta defoon alaaji Babacar Kebe Njuga moo ko ñaaraale ñaaralaatal ci jamono mooy maam Cheikh ci jamonoy sëriñ Touba bi réew mi nekkee ci xiif guerre bi jeex sëñ Tuubaa daf ko ne seex mu ne ko mbàkke mu ne ko réew mi ñu fi nekk sama njaboot lan te maa leen war a dundal demal wuti ab dund ci la maam Seex Anta woon bato boobu ñuy wax muy 4000 tonnes ci ceeb ñu séddale ko ci réew mi yaakaar naa ne boobaa ak léegi koo fi dégg mu jëndaat 4000 tonnes ab importateur la boo xam ne bu ko importé bu ñëwee daf koy daal di exporté daal di koy jaay doomu aadama yi. waaye jënd ko rek ngir social seddale ko ginaaw bu maam Cheikh Anta Jàllee alaaji Babacar Kébé Ndiouga moo ko fi defaat ci région boo dégg ci Sénégal ceebam dem na fa peppam dem na fa mboqam dem na fa suukaram dem na fa ay yëf yëfaanam yu baree bari dem na fa te ña ko fa yóbbu alaaji Babacar Kebe Ndiouga du xam kër gañ koy dugal waaye day jàpp ne nag réew mi ñu fi nekk sëñ Tuubaa mooy seen jëwriñ te buñ xiifee moo leen war a dundal loolu ci wàllu social yaakaar naa ne duñ fekkaat koo xam ne dab na ci alxaaji Babacar Kebe njuga waaye boo jeexalee loolu lépp nag ci moom alaaji Babacar Kebe njuga di xool digganteem ak ay bokkam da gis ne mbokk yi day kam ci man di doon bañ na ko ba sax entreprise bi mu créé ba mu liggéeyee xaalisam ba am ko ba mu dikkee Kébé et la ko tuddee kebe et frère tuddewu ko sax Ndiouga et kebe Kébé ndax bu doon Ndiouga Ndiouga ak rakkam lay doon waaye kebe et frère nag ku sant kebe rek ci biir askan wi bokk nga ca. entreprise booba te jariñu nga ca njariñ loo xamante ne bii danga ne lii ma njari njuga li njugo jariñ doomam wala mu jariñ ko rakkam ji mbokkal baay jariñu ma ko loolu njuga mucc na ca xas woowu da nga fekkit ne alaaji Babacar Kebe njuga liggéeyam mi ngi wéy di des ci réew mi mu nekkoon ku jege woon Cheikh Abdoul Ahad jàppale ko ci xilaafa gi ba kero bi mu génnee àdduna gis ngeen bayit yu am solo yooyu nga xam ne sëriñ Abdul Ahad joxoon na ndigal alxaaji Mouhamadul Mamoun Ñang mu yëkkati ko ngir def ko ay témoignage ci moom mooy ki nga xamante ni moo njëkk a jënd lu mat fukki karta gris ak ñaar séddale ko doomi sëñ Tuubaa yu góor ak yu jigéen ñoom ñëpp kenn ku nekk oto balay balay yóbbu alaaji Babacar Kebe Njuga moo ko jëndoon ma wax nag ne bokk yi ku mel nii liggéeyal li am réewam lu toll nii jóge fi lu toll ci fanweeri ak juróom gisoo lenn luñ ko duppee lenn lu luñ tudde alaaji Babacar Kebe Ndiouga gisoo ko ci réew mi di ko tuddee ay jàmbur di ko tugge ay fokat di ko tudde ay jàmbaari jàmbur yoo xam ne sax du ñuy seeni jàmbaar ay bokk yi ndax dañoo xamul suñ bopp wala dañoo xamul liñ am wala dañoo gëmut suñ bopp na nga waroon naa fekk marché bi gën a rëy ci réew mi ñu tuddee ko alaaji Babacar Kebe Ndiouga wala ñu xool mbedd mu mag tuddee ko alaaji Babacar Kebe Ndiouga fàttaliku jëmmam jooju nga xamante ne bii référence la ci ñi nga xam ne ñu ngi wut alal ngir mën a servir waat seenum réew waaye ko bu ñu xalaatee li Sénégal faye Alaaji Babacar Kébé Ndiouga ko am xaalis da nga da nga ko iñaane sax investir ci réew mi ndax danga nga kii mënuñoo delloo njukkal koo xamante ne bi liggéeyal na am réewam waaye bokk yi bu ko réew mi defut diine ji war na koo def na di waroon naa fekk daara ju mag ñu tudd ko alaaji Babacar Kebe Njuga wala jumaa ju mag ñoo xamante ne bii wala boog yeneen ak yeneen yoo xamante ne bii eh, lislaam a koy moom ñu dara jaale ko alaaji Babacar Kebe Njuga ngir delloo ko ko njukkal loolu nag maa ngi koy delloowaat lancé appel ci di dëkki diine yi kër yi yoone murid yi ñiy liggéeyal sëñ Tuubaa ay waay nañ delloo njukkal alaaji Babacar Kébé Ndiouga ci duppee ko loo xamante ne bii du doon dara ca moom du doon dara ca moom waaye ak njabootam danañ xam ni réew mii kat bàyyi nañ xel seen wayjur wa ndax daa daan liggéeyal lislaam le 13 mars 1984 la fi bàyyi ko woon mille vingt deux agsi na na ko ñëpp fàttaliku ci ñaan ku ko munta delloo njukkal it mën nga ko jàngalub kaamil yow sëñ daara bi xam ne jariñ na la ba mu jariñ sa wayjur wala mu jariñ sa sëriñ man nga ko delloo njukkal yow mi nga xam ne yaa ngi yor sa xasida di jàng te xam ne sa mbokkum taalibe mu doon liggéeyal sëriñ Tuubaa ngi nii ba dem àjjana yow mi nga xamante ne bi yaay tudd yàlla man ngaa fàttaliku alaaji Babacar Kebe Njuga ci wenn turu yàlla wala genn salaatu wala genn istixfaar goo xam ne da nga ko ko defal sun borom doole ay maqaamaam doole ay njëggalam doole ay yërmandeem bi barakati Seexuna Ahmadul Xadim ñuy saar baax a baax seen wayjuru baax wi fi bàyyi ko di sëriñ Ousmane Kebe yàlla na tàbbal jannatul firdawsi maa ngi siyaare lislaam bépp di siyaare doomi réew mi yëpp di siyaare njabootug alaaji Babacar Kébé Ndiouga yëpp di leen joxaat dox daje di ñaan ñu fekke waat ko beneen 13 mars 2023 euh, euh, incha allahu rabbi seen bokkum taalibe Fallou a Syll wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. bismillah.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 سفيك بقاء أبيهم لي فيك يا الله يا من له الأمر يا من لا تريد